tey nag daje nañu waxtaan ci fànn yu bari ndax umpalewu leen ne wér yaram njàng ñooy li nga xamante ni ñooy li ëpp solo ci dundu doomaadam ci wàllu wér yaram wi wax naa conseil bi pour ñu xalaat pour ñu mën a jënd rajo numérique boo defee buñ wax naa conseil bi pour ñu mën wax naa conseil bi pour ñu jënd rajo numérique rajo numérique boobu ak mammographie numérique ak colposcopie numérique danañu permettre jigéenu wérul yi nga xamante ni dañ leen a war a saytu ak même ñu dul jigéenu wérul ñu war leen saytu ñoom jafe-jafe wàllu ween wala wàllu col de l'utérus ñu mën leen saytu mën leen a teel a faj dana permettre aussi ñi nga xamante dañ leen war def rajo ñu defal leen rajo dana permettre aussi wax nañu tamit ci orientation bi pour nu ñuy fexe ba bâtiment bi mairie bi tabaxoon ci biir euh, centre de santé bi ñu mën ko ériger en bloc opératoire bloc opératoire dana permettre jigéenu wér yi nga xam ne dañ leen daan jël di leen transférer Touba wala Diourbel wala feneen ñu mën leen a defal césarienne fii ndax boo xoolee bloc bi li tax du jafe mooy fi mu war a dem mairie tabaxoon na ko fa rajo bi fi mu war a dem ak colposcopie bi ak mammographie mairie tabaxoon na ko fa kon nag li ñuy jublu rek mooy commission yi liggéey ci techniciens yi ñëw ñu xool ko def ci moyens yu doy mën koo liggéey waxtaan nañu tamit ci mbiru njàng mi ci mbiru njàng mi it am na classe école yoo dafa am ay jafe-jafe classe pare nañu pour jàppale leen tabax leen ay classe pour jëlee fi abri provisoire itamit am na école yoo xam dañoo am problème courant dañ ko yéenee saafara waxtaan nañu ak IEF kër at mii di ñëw bëggoon nañu créer benn concours boo xamante ni dafay nekk concours de l'excellence concours boobu nag wax nañu ren danañ organiser benn concours concours boo xam ne concours de l'excellence lay doon concours de l'excellence boobu pour élèves bi nga xamante ñoo gën a xarañ ñu ma leen a jox ay raaya wante ay neexal ñu gën a góorgóorlu wax nañ leen tamit ci mille 2021 bi salle polyvalente bi ñuy tabax ànd ak la bibliothèque municipale dina pare bu defee ñu mën cee def jumtukaay yi war yépp pour que école yi mën ko jëfandikoo ak ñuy nga xamante ni wante it waxtaan nañu ci pépinière yi ñu war def ci biir école yi pour xale yi ñu jàngalal leen nan la ñuy toppatoo garab mais aussi reboiser école ci ginnaaw bi nga xamante ni mairie bi wax dëgg yàlla jëloon na en charge fourniture yi liggéeyaat école yi ba mu nekk ci beneen dynamique boo xamante ni dynamique bu am solo waxtaan nañu tamit ci li nga xamante ni dafa jëm ci régie de transport scolaire mairie bi it liggéey nañ ci benn projet avec un partenaire sore nañ ci lool ba jàpp nañ ni incha allah 2021 bëgg nañ ko réceptionné pour fekkee lépp jaar nañoo yoon waxtaan nañ tamit ci marché deuxième étape bu marché bi ndax sangam liggéey nañ étape bi gënoon difficile ci marché bi deuxième étape bi mooy bloc yi ko wër ñu mën ko liggéeyaat étage ba ñu ñi nga xam ñoo wër marché bi te nekkoon ci position yu baax mën am ay place yu baax pour marché bi gën a attractif waxtaan nañ tamit ci benn projet centre commercial ak benn partenaire boo xam depuis trois mois ñu ngi ciy liggéey ba actuellement ni finalisé nañ daanaka signé convention rek pour commencer travaux waxtaan nañ ci ndox mi waxtaan nañ tamit ci électrification yi wante li ma bëggoon a wax rek mooy bi ñu nekk di ci liggéey doonte retard bu Mbàkke dafa yàgg depuis 1960 ndax mbakki dëkk politique te politique ko tardé di ñaan rek mag ñi erreur yi ñu def seen doom yi bañ koo def ndax mag ñi ci ëpp ñoo daan jàppale politiciens yi loolu waral retard bu Mbàkke mais na ñëpp concentré wu nag jàppale Mbàkke te politicien bi benn nit la bu ñëw gëm loolu li ko neex nga gëm ko topp ci ginnaawam mu lijjanti li muy lijjanti ba pare bala fi nga continuer ci jafe-jafe yow ak sa njaboot kon nag nañu jàppale Mbàkke te bañu jàppale politicien jàppale Mbàkke nag mooy ñëpp ànd xool ci liy doxal dëkk bi ñu def ci suñu doole ak suñu xam-xam ak suñu man-man pour vraiment dëkk bi mën a kon maa ngi leen di sant bu baax leen gërëm